damay tontu ci wolof non tey kontaan naa trop nekk euh, ak yéen euh, incha allah yaakaar naa ni dinañu dem ci final indi indi coupe bi ci Dakar jërëjëf waaw xaar ñu ne Mbara ba. Mbara Algérie. waaw. ak day bañ a Mbara Algérie ñu ne ñu. Merci.